بشرى لنا قناة نجود dëkk bu sell bi ci bis bi nga xam ne moom la ñu defal soxna Daba Mbàkke waaye bis bu màgg di ñetti farni baraxlu bis bi it foo dem ci njabootu sëriñ Modou Moustapha gi tey jii ñu ngi koy màggal ñu nekk fii nag ci njaay ci teewaayu sëriñ Amsatu Mbàkke kenn ci njabootu soxna Daba mu feggoog sëriñ Baara Jaxate waaye dawaay yi nga xam ne itam ñi ngi ànd ak ñoom liggéey bi xam ngeen ne ku ne màggal ne jàngal xuraan waaye ku ne màggal ne bernde ñii nga xam ne nag ñoo féete ci wàllu ñu di ko saytu ñu fekkoo ci ak euh, Baye Cuun bëgg jàmm ak soxna jàmb ci wàllu soxna yi ku mel ne ñoom la ñuy bàyyee kàddu gi kon ñu wax ñu rek li nga xam ne noonu lañ ko waajalee ak ni ko ànd ak bokki ba liggéey bi toll fii kon bàyyi jun bëgg jàmm asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sang yaaram ñoo ngi leen di siyaare di waaw ni nga ko waxee rek noonu la ñëw nañ tey fii nga xam ne ci bokkaatul mubaarak di fenn ci waa kër soxna dama Mbàkke mu Cheikh Modou Moustapha euh, sëriñ am satu jiital ko jiite ko ak euh, rakkam ju baax ji nga xam ne mooy jëriñ sëñ Baara Jaxate ñu teew fii nag ñun soppay soxna Daba Mbàkkum Cheikh Moustapha boo nee soppay soxna Daba moom Cheikh Moustapha nag daanaka soppam ñëpp nga ndax Cheikh Moustapha Karim moom ñëpp ko sopp ñu ñëw na tey ci bisub bi nga xam ne mooy bisub boppam bi ndax Cheikh Moustapha Karim kat benn bis la am mooy ñett fanu baraxlu foo fanu baraxlu nag fépp waay nekk Sénégal nekk fa doomu wala nga doon ëpp sëtam danga ko fa mandargaal ba ñëpp ñu xam ko waaye nag tey fii nu koy defee nag ñun di soppay soxna Daba moom Cheikh Moustapha ak sëriñ Amsatou Mbacké moy buqaatul bar bir keur serigne Touba ngeen waxoon ni foofu waay teg sa tank tango ci tànku serigne Touba kon nak lolu bu ñewé diko fi def and ak daayira bi goor ak jigen mag ak ndaw di def kon wax deug yalla ñun ñoo ngi dundalaat barab bi ci euh, ndigalul sëriñ euh, Amsatou Mbacké ak soxna mam fatima Mbàkke ma réemaloo di ñaanam yag ci lolu te wer yaguno gungé ci barke kon dal na damalé lolu rek ba ci karam xamna ni barakallahu Baye Thioune bëgg jàmm soxna jàbba yan kàddu ngay teg ci yi Baye Thioune doon yëkkati en tant que soxna yi ak taxawaay bi ñu am ci wàññi waaw di sant bu baax di julli ci yonent bi sama sang yi ak suñu bunt ci Xaadim Rasuul suñu Muntaxa Mbàkke Basiir di sant bu baax suñ am sa Mbàkke moom soxna Daba Mbàkke moom sëñ Moustapha ak suñu Amar Fall Mbàkke moom sëñ Baara ak sëriñ Baara Jaxate moom soxna Daba sëñ Moudou Moustapha mu mel ni tey dañoo nekk fii ci Bokkatul Mubaarak di màggal bisu Seex Moustapha al Karim muy màggalu ñetti fanu baraxlu macha allah ñu àndoon ko ak waa soxna su baax sa muy soxna Dabam Seex Moustapha mu daan ko màggalal waajuram sëñ Moudou Mouhamadou Moustapha ba soxna Daba Mbacke jiitu ji macha allah bàyyee ñu fi jabootam muy sëñ am sa Mbacke xalifaam ak sëriñ Baara Jaxate macha allah ñu koy màggal tey ñu ñëw fii ci Buqatul baara di màggal bi su Seex safaa di ñetti fanu baraxlu xam xëy nañ wàcce nañ kaamir yi macha allah ah, fas yéene bernde gan ñi bu ñu berndee gan ñi macha allah dalal gan ñi dëkk yi génn ñu jox gan ñi suñ jógee ba añ ba pare incha allah bi ñu waajal reer yi togg reer yi. ah neexee yàlla ñu jublu ci cérémonie bi bu bi jeexee bu neexee Serigne Touba Mbacke ñu jublu ci fas yéene fanaan baas fanaan ak Ousmane ba bët sa picc ci ndigalu sëñ ak sëñ Baara Jaxate ak suñ jëwri nii nga xamante ni ñoom nañ lekkal ci biir kër bi ñu jiite mu mel ni su ma ci tuddee Baye Ndiour tudd ci jëwrin Khady Gueye tudd ci Pape Baye Thioune ak Baye Cheikh Seck tudd naa ñëpp ah, loolu daal laa xam ne am na lu ma ci doon ñëw tuuti ba ci kanam ay suñu kàddu yi am na solo kon xam naa nga tëjal ñu ko rek ñu jàllat ci yeneen jotaay ci nga nga ci waaw uh, sant bu baax rek di ñaan uh, saa yu fi rek at mi nga xam ni moom lañ weesu ñu dugg gën koo rafet lool gën koo dëgër lool mu doon jàmm ak xéewal joo xam ne dañuy may fan gudd ak yaatu mu liggéeyal borom ci may di sant suñu jëwri ñi nga ni yàlla dafa dogal ñu doom ay jigéen ku mel ni soxna Daba moom suñu mbàkk Madina moo jiite jigéen ñëpp ah, soxna ay ña nga xam ne na noo wax ni ci saayir moo soxna si ñoo maase woon ba léegi moom itam mu nekk ci ànd ak soxna Daba Madina ñu àndi jiital jigéen ñi ànd ak ñoom liggéey bi ak soxna Soda Seck soxna Aram Fall Dieng it wax dëgg yàlla moom itam ci jëwriñ la woon. bu ma limee nag du ma matal dama euh, du ma jum waaye du ma matal comme bu ma limee du ma matal nag léegi daal li am solo mooy mbooleem ko du soppe ak foo ko nekke ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm ci barkeb sëriñ bi di wax mbooleem ku teew ci guddi gii nag yàlla Cheikh Moussa far say bàkkaar yëpp saafar sa raggi xol ak sa raggi yaram bi war ma ci Rasulullaah sallallaahu taala alayhi wa ba merci kon mi nga kaddu yi mu bàyyi ko ci ñi nekk ci waañ wi di saytu liggéey bi soxna jàpp ba yëkkati kaddu ci tur soxna yi bàyyi cuun bëgg jàmm yëkkati kaddu ci tur góor yàlla yi màggal gi ku tudd màggal ne bernde fii ji baa mbaarak nu fas yéene waajal lii di bernde yi ñu war fas yéene jox ñi ñëw waaye bu ñu noppee nag berndeel rox yi mooy waxtaan ak ñoom ci Serigne Mour Moustapha waxtaan ak ñoom ci soxna Daba bi tax ñu di ko def waxtaan ak ñoom ci buumug l'islam gi nu lëkkale kon mbokk yi mi ngoog seen mbokkum taalibe Mor Talla kan Ndongal Touba dig daje wa axiru dahwana an alhamdulillahi rabbil alamin fallahu ala ana jazai wa wasalaamu alaykum wa rahmatullah إلهم يقم رداجا إدور المدينة لم يكن مرتجا سلام على الماهرين kuremo bala ñuy sori rek dañuy daal di dugal ginnaaw bu ñu nuyoo sëriñ am sa Mbacke ak sëriñ Baara Jaxate ziyaare sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Oudoot mi ngi ci kaw li ci des di autorités yi incha allah El Hadj wa dina ci ñëw suñu mag mi ngi fi ma peex di doomi Abdoulaye Mbaye peex. di soppee sëriñ am sa Mbacke di kenn ci sëñ sa nga xam ne dafa am émission léegi ca tele ba ñew ngir yalla ak bis bi mom la serigne bi ne nañu ko jox kàddu mu jël doonte woon limi muy jël bu noppé nak ñu déglu njang mi touti suñu dellu ci waté nak di woy li nga xamné moy cérémonie bi kon ñu ngi ñuy ñëpp soxna Ami Lo ñu ngi lay ziaré di la jox waccu way di nuyu mbolém turundo soxna daba yi ñongi fi tambalé ko ci soxna daba mu serigne mbacké Madina di ko waccu way bu baax kon ma jow pex dafa melni serigne sëriñ Njaga ngi noonu di dugg si jërëjëf jaamu borom Touba jaam jamat. ñu ngi koy ziyaara di ñëw ci kanam tuuti rek incha allah ci délégation yi ñëw ci préfet mi nga xam ne moo fi teewal état bi loolu alaaji sàmbawa dina ci ñëw incha allah waaye nag di santaat nag ki nga xam ne mooy sëriñ daam sooda faal mu sëriñ am di moodu mbenn faal xalifa maam cheikh ibrahima fall yàlla fi yàgg ci ànd ak sëñ daam sooda nga ne di porte parole yoonu Baye Fall sëñ daam sooda ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Fall jërëjëf mat jow peex ci kaddu yu rafet yi nga fi yëkkati di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp rawatina njabootu Serigne Touba gi nekk ci kaw tribune bi di jël nuyoo bi di ko jiital ci sëñ am sax Mbakke yàlla ma ngi nuyu bu baax a baax. yaakaar naa nuyoo bi su ma ko tegee sa loxo matale na njabootuk Sëriñ Tuubaa gi nekk ci commune bi yëpp waaye di nuyu bu baax préfet bii nga xamante ni moo fi teewal tey gouvernement bi ak délégation bi mu àndal yëpp di nuyu bu baax a baax sama baay yi nga xam ni Jurbel lu fi waay def ci lu baax rek dina leen wóor ndax seen kàddu yu rafet di nuyu ñu nekk ci bas bi ñëpp yaram jaxte ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ni nga toppee sa mag yii toppee ko sañu am sa ànd ak moom di liggéey ci liggéey bii yàlla na leen ko Cheikh Modou Moustapha Faye sëñam sa nag sama digganteeg moom moo tax tey ma ñëw fi te yàgg naa fee ñëw muy sama sëriñ di sama xarit day ñëw ba Sacré-Cœur ga ma dëkk di ma fa fekk si tey ñëw bi xat na lool waaye Mbàkke mënu ma laa gàntu de mu doon te ñaari minit sax dinaa ñëw ba ñëpp gis ma ndaxte nit day nu mu la def rek noonu nga koy def te Mbàkke am nga safoo ci taalibe yi am nga faale ci taalibe yi moo waral sama teewaay maa ngi it ci njëkk a jël kàddu gi dara walalu ko loolu damaa war a dem léegi nii ci télé bi en direct moo tax ma ni naa njëkk rek su ma paree bàyyi fi télévision bi ñoom ñu àggale cérémonie bi loolu nag Mbàkke sa digganteeg man moo ko waral bis bu ne damay wax ni taalibe yi mën na noo raam mën na noo joxe seen addiya waaye sëriñ ci xol dañ koy tànn te yow Mbàkke taalibe yépp def na la ci xol bi li ko waral nag mooy sag oyof sag yaru bis bu ne damay wax ni bërigé yu feesul yi dong ñooy yëngatu di bëgg a rey nit ñi waaye bërigo bu fees du yëngatu sa tekkaay bii ak sa dal bii ak sa yaru gii nga yaru ku la ci xool ci foofu rek dina annoncé heure ci yow man ku la xam laa bis bii ngay màggal nag jële ko ca sa wajur wu baax wa soxna Daba moom Cheikh Mourou Moustapha moom Cheikhul Khadim Mbacké nii rek la bu dee wax ku des dese yàlla na ku baax dese ku baax bu desee lu fi bàyyi du rab du raf du réer Mbacké yàlla nga fi yàgg lool tànd ku wér yàlla nga yàgg dese tey ku toog fii toog ci penc soxna dama ni mu daan màggali bis bi tey nga toog nii ànd ak saraki di ko màggal xam ni li baax baax di am solo dem bàyyi ko fu baax moo ko solo Cheikh Moulou Moustapha nag li sama baay Samba wax léegi rek mooy wax ji boo segoon ñëppee seg billaahi wallaahi taalaay keroog bi mu xëyee bi mu jógee ñaaxeen ñëw fekk sëñ Bamba fii jël ko yóbbu ko Touba xaddamul tubaab tiimu ko boobu ba esegoon rek lépp eseg waaye njàmbaaram googu moo waral ba léegi yéen muy di dox moo waral ba léegi dara mënu eseg mu fondation jumaa ji koy téye amee yi mu wax ñeent dëkk ma ci wilaay doy ga xaadim ko nit si mbaa si mu sëñ Mbàkke li nga wax bàyyi dëgg la bu esegoon ñëpp eseg bu esegoon tamit beneen taaw dudul dudul dudul sauvé taaw yëpp eseg loolu Cheikh Moudou Moustapha la Mbàkke nga doon ko nag lool ci ngor geeg gëm ci naw naa la lool kenn mësulaa fekk ci état ngay ñaan kenn déggisul say lettre tendance oo kenn nekkoo ci Facebook bi wax nekkoo ci youtube bi wax woote woo lenn lu dul diine ak sa maam Cheikh Moudou Moustapha woote woo lenn lu dul sa wajur bu baax wala mu doon woote muy soxna dama mbàkke ci bis bii loolu rek lañ la xam sëriñ nag bu melee na mu war a mel taalibe yi warees na koo ràññee sëriñ bu mel nii ko am war nga koo ràññee de sëñam sa kenn déggu la ci lenn ñun xam nañ lu bari ñu ngi ci réew mi nekk ndakaaru waaye yow de nga cëppuloo kenn déggu ci lenn lu lu ci sa maam Serigne Touba rek moo tax taalibe yépp ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan waaye yàlla yàgg la fi Serigne Touba sa maam nag ku toog ci moom li mu yor dina la regg ndax lu fi waaye am bay balballu wala lu fi seen ba li lii ruy la ci seen Tuubaa la jóge mu xëy moo tax nit ñi gont bu xëy woon kenn du gont bi mi ne kurus kenn ñi wula ñu def ko ñetti bàmmeel demee sama yaay faa ñu jóor ki dex ci ndar la joor joor ñu daan ko ci pind bi ci déqale demee sama yaay faa dem gaar bi ci teewoon

fii rek la Serigne Touba def fukki at ak juróom def ko feneen fii ci njaareem moo tax ku màggal ku ne am nga màggal waaye yow tey kenn ëppul ak màggal màggale foo xamante ni li Serigne Touba def ci àdduna ci ci dundam foofu rek la ko def yow mii yaa màggal fii nga màggale ci kër Serigne Touba gii nga xamante ni fii la daan nekk ñu noddu mu génn yow mii rek yaa màggal moo tax. Mbàkke ñi ngi lay ñaanal di ñaanal sa rakk ji waaye di ñaanal sunu wajur wu baax wa soxna Daba yal na yàlla yokki leeram sunu wajur woowu lépp moom nit na mu mel rek war naa xool ay wajuram Mbàkke nii nga mel sa tekki sa dal kenn déggu la ci lenn sa wajur bu baax waa soxna Daba yal na yàlla yokki leeram yàlla nu yàlla tas ci barkeem Mbàkke kàddu yi rek laa ne woon naa ñëw sànni ko fet feddali sama diggante ak yow jàpp gi nga ma jàpp ak jàppale gi nga ma jàppale xale buy doo ko dugg ci télévision ñu bari di ko fréquenté lu bari day day day riwut si ko waaye lu bari Mbàkke yaa tax agsi wu ci man yow mii yaa ma fal Mbàkke yow mii yaa ma jàppale yaa ma fekk ca Sacré-Cœur ni ma ñëpp dina la dégg di jàmb di ma jox may naan di jàmb di ma jox may sangu ba tey ma mel nii ma mel kon bu ma la fàttee du ma gor moo fi doon toog ñaari minute sax dinaa ñëw ba nga xam ni ñëw naa ndax ngo li ma séer li ma ji laa bëgg mun a mun a yëg ko rek bëgg moom yëg rek koy fay jërëjëf alaaji Samba wa jërëjëf noonu rek la léegi nag baay mbay ak jëwriñam ji nga xam ne mooy Serigne Baara Jaxate yàggal fi sëñ Moustapha Sarr mi fi toogal Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba ne mu yàggal fi nag kilifa diine yëpp ne mi ngi yeesal ak njébbalam ci Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba di jaay ak ngorom doonub jaam nim doone jaamu sëriñ Touba ne di nuyu it sëñ am sa mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi jaarale ko ci nuyoo bi mu jotale ko mbooleem njaboot gi fi toogal sëñ Tuubaa te sant Ahlu Mbàkke di nuyu autorité yi di nuyu mbooleem ku teew ci baas bi ne delsi nag di yeesal kàddoom gi jëme ko ci Sëriñ Tuuba ne Serigne Touba day kenn koo xam ne ci sunu boroom fi mu jaar sunu boroom saaba ya ak xulafaayu ak yonent yi kenn mësu faa jaar sunu boroom ne Sëñ Touba di kenn koo xam ne bu feeñuloon jamono doon yërmande yàlla ca taxaw jëmmam ñépp sawara lan jëm ne kenn génnewuti ci kenn nag ne kon bu sëñ Touba ñëwee jamono daa am ay charte yu tax mu ñëw jamono ndax suñu boroom ndax suñu boroom yonent yépp ci bànni Israël la leen feeñal Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam moom dong moo feeñ ci Xuraysh ne nit ku ñuul mës am yonent yombal xiyaam nag yàlla bëgg noo dimbali jël banni doomi aadama yi jëmm ji muy sëñ Touba feeñ daaru duniyaa sëñ Touba wax ne wax ne yàlla moom loo na ko ruu yëpp ne kon képp ku woote daraja rek génnoo ci moomeel gi yàlla moom loo na ma barsàqul muhammad yàlla it moom loo na ko bar sàqal muhammadiya moom loo na ma juróom-ñaari àjjana yi moom loo ko juróom-ñaari àjjana yi àjjana yi juróom-ñetteel ja àjjana yi juróom-ñetteel ja yàllaa fa dëkk te dëgg na ma ko yàllaa fa dëkk ca dig na ko ko kon sëñ Touba wane na boppam kon sëñ Touba wane na boppam mu bëgg ñun ñii nee mu bëgg ñun ñii ñu yeesalaat sunu taalibe ñu yeesalaat sunu taalibe bala bala ñoo wax ne bëgg nañ yonent bi bala noonu ne bëgg nañ yonent bi di woote ay sopp yonent bi di woote ay sopp yonent bi dañuy nangul sëñ Touba ba noppi ne képp ku nangulul sëñ Touba ak koo mën a doon ak foo mën a ne boo dee dem sawara ne kon ñun murit yi nan delloo am ngor bañ a bokkaaleeg sëñ Touba lenn bañ a boole bokkaaleeg njabootu sëñ Touba gi lenn doon ay taalibe yu dëggu tegu ci pas-pas. te bañ a gis suñu bopp bañ a diir mbagg waa kër sëñ Tuubaa yi bañ a diir mbagg waa kër sëñ Tuubaa yi te xam ne bu dul woon seen maam ci kenn du am dara Sénégal boo gisee nii mu mel nee Sénégal boo gisee nii mu mel ñi ci ëpp dañuy tuddoo sëñ Tuubaa waane gëmuñu dañuy tuddoo sëñ Tuubaa waane gëmuñu ko sëñ Tuubaa nee sëñ Tuubaa lépp lu yàlla di yëngal lépp lu yàlla di yëngal mi ngi ci loxob sëñ mi ngi ci loxob sëñ Tuubaa muy xutbu rabaaniya muy xutbu rabaaniya moom daaru duniyaa moom daaru duniyaa yor def ak dindi yor def ak dindi diirub ñeenti téeméeri at diirub ñeenti téeméeri mi ngi ci loxol sëñ Touba kon sëñ Touba nag ne kon sëñ Touba nag lin mën a góorgóorlu def ko lin mën a gën a góorgóorlu def ko doon ay taalibe yu dëggu doon ay taalibe yu dëggu ànd ak pas ànd ak pas-pas bañ a gis suñ bopp bañ a gis suñ bopp xam na lépp sëñ Tuubaa te xam ne lépp sëñ Tuubaa soññ naa sama bopp ne soññ na boppam soññ sama mbokki taalibe yi soññ mbokki taalibeem yi nan góorgóorlu nan dollu gën a góor góorgóorlu yeesal suñu pas-pas jëme ko ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ak kennal sëriñ Tuubaa ne fi muy wàccee kàddoom nag benn sëtub sëriñ Tuubaa ñeent fukki wàlli yu yàlla ñeent fukki wàllu yu yàlla ñooy méngoo benn sëtu sëñ Tuubaa kon ñun murid yi am na loo xam ne am nan loo xam ne lu nu amut lu nu ak fu nu eggut ak fu nu eggut ci ñun la sëñ Tuubaa daal amul morom sëñ Tuubaa daal amul morom nañuy nangoo liggéeyal sëñ Tuubaa di bay bayub dex di yeesal sunu taalibe am pas-pas bañ a bokkaale ak sëñ Tuubaa lenn ne loolu mooy sunu ndimbalul tey mooy suñ ndimbalul ëllëg it nee jërë ngeen jëfati auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim xayril maghdubi alayhim wala daalin amin barkat si Abou Sawal Karim barkab Cheikh Boussa Al Karim barkab Cheikh Boussa Al Karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndongo la ñuy wax bàyyi ci bëgg jàmm soppeeb soxna Daba Mbàkke mu Cheikh Boussa Karim mooy siyaaram mbooleem ku fi teew jël sama siyaar teg ko ci loxoy kilifa yi bu ma nee kilifa gi nag muy sëriñ Amsatu Mbàkke mu soxna Cheikh Moustapha bi ma tegee nuyoo bi ci loxoom mu tegal ma ko ci loxol soxna Daba Mbàkke Madina moom Sëriñ Mbàkke Madina mi nga xam ni nii moo fi jëmmal jotaay bi tey ci mbooleem turandooy soxna Daba Mbàkke yi ak fu waay mën a nekk ci nekk ci turandoom ak noo mën a toll soxna Daba yóbbaale na sa nuyoo di ca teg rek ni man de ndonga as ndonga laa rek lu lu ñu yónni samay jëwriñ ñoo ni ma naa leen waxal nit nag bu leen see jëwriñ ne waxal ma ah loo xam ni lu dëng la di ci ñoom ci man la bu jubee it ci ñoom la di fàttali suñu kóllëre bu baax ci soxna Daba Mbàkkeem Seex Musaa di wax ne ñun soppe yi góor ak jigéen mag ak ndaw fu waay mën a ne li leen indi ci soxna si nag ndimbal la du sunu njàmbaar ndax bi ñu ànd ak moom mu ñor ci boppam ba léegi ñu liggéey Seex Musaa njariñ lu dul jeex rek lan ci gis muy li sëñ Tuubaa waxoon saa nafsin bilaa dararin ci kaw loolu nag dañuy sant jëwriñ ju mat ji muy bàyyi Cheikh Seck mi nga xam ni nii moo nu mat ba teg ci loxol soxna dama mbàkkeem Cheikh Moustapha kon lépp luñ ko liggéeyal rek moom dana ca fayu booy léegi li nga xam ni moom la liggéey loolu soxna si te mënuñu koo dab di dara beral lu itam soxna ay dangang nga xam ni buma ko sañee wax ci sayir mo soxna sefi fi nekkoon ba tekki wul la xayam ma nga ci kërëm di def ay dernde di ko indi fi tay ma nga te ba léegi nelawul waye limay wax dal te bu xamni moy li wër ñun dañ fay gis suñu ñariñ dañ fay gis ñariñ li wër péng man de giñ na ko Cheikh Moustapha Tay ni mako ko non la amé ci ñëpp ci soppe yi soxna suma fi indi suma duggé ci barab bi na soxna si waxoon ni mbaxana ci pos dal ci pos lu fi way ñaan faju wut seetal sa bop lolé soxna da waxoon dal ni sa saa ji wul bor dafa am pay liggéeyalul ko dara suñu bop lay liggéeyal ndax moonu wan lu jar ñu liggéeyal ko soo fekk àndee koo xam ne nii lu mu la wax nga teg sa bët yaay daw di ko wut si moo tax ñu ñépp ku dib soppe ñu daw wut si soxna Daba kon suñu njëriñ kese moom lañ fi am waaye du loo xam ne ni njëriñul soxna si la di wax ni ku la garantil yowmal xiyaam ni la doo dem sawara mënatoo ko fay wilaay asim fii ci pàkk bi lan màggale ba fajar si jot mu ñaan naar ñang mi nga xam ne taalibe sëriñ Aliyu Mbàkke la mu ni soxna si dimbali ma wax ci ñii daal ñëw naa fi at yi bari xam naa ni jël li jëmm lañu te duñ def gistal li may ñaan mooy bu yow mal xiyaamee soppe bu ci naar dem sawara ma demal ko sawara te mu dem àjjana billaay asim soxna si ni jëm ba ci yàgg mu ne ko naar mu ne ko mbàkkee mu ne ko xanaa xamoo ne man bu yow mal xiyaamee saab soppe fu mu nekk ma fekk ko fa wala fu mu nekk fu ma nekk mu fekk ma fa man kenn du ma sopp dem sawara kon damay wax ni daayira bii bàjjen toog ñang ci boppam moo toog soxna daba toog sëñ Abdou Khadir toog mu ne ko roqeetu mu damay ñett doon mu ne ko mbàkke mu ne ko xanaa xamoon yow ku la yaakaar wala ku bu la du dem sawara kon jar ñu bëgg ko jar nañu sopp ko xër gii nu ci moom du njariñam ñun suñu njariñam kon nañ leen ci bàyyi xel di waxaat ni ñoo ngi sant bu baax ci ko fi nekkal te jëmmal ko muy serigne Amsatu ak ñom serigne Baara ndax ku santul doos as gor di sant bu baax nak ki nga xamni tam fu ñu nekk mu doon fa suñu jawriñ mu serigne Cheikh Ndiaga Mbaye Cheikh basir sar jaamu serigne Touba su ma ko duma as gor kon maa ngi ñaan ci barkeb Cheikh Moussa Karim barkeb guddi gi as ndongo laa sax waruma ñaan waaye sa sa sañ na maa sarxu ñaan képp koo xam ne nii yaa ngi ci baas bi ndax soxna si da daan wax ni Cheikh Seck mu ne ko Mbàkke mu ne ko fu ma nekk boo ñaanu mel na ni maa ñaan kon ci ndëbalul soxna si ak màgg guddi gi yàlla nu yàlla boole dimmili ci barkeb Cheikh Moustapha Karim defal nu fan wu gudd ànd ak wér ak njaboot gu barkeel ak xaalis bari lool bu nu mën indi fii ci kër gi di ko liggéeyal Serigne Touba yàlla nu ko yàlla may may képp ku ko bëgg di wax ni mbooleem koo xam ni yaa ngi doon soppe bu jigéen wala bu góor walla ku sopp Cheikh Modou Moustapha yàlla nga toog ba retraité say sëtaat yor la ngay doxee nu la neex ci barke Sëriñ Tuubaa borom guddi gi man na ko lu neex lañ koy lañ koy sëf te luñ ko sëf mu jox nu ko kon sëñ sa ñoo ngi lay ñaanal yaag sa rakk ak soxna Daba Mbàkke Madina ñaari téeméeri at wér ci barke pàkk bi ah, xëy na nag su ma juumee ci man la waaye du ci ñi ma yónni yàlla na nu yàlla dolli jàmm yàlla na nu yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla dolli jàmm ci barkeb Cheikh Moustapha ndongali Baye Thioune taalibeb sëriñ Dan Xariloo te jëwriñam sëriñ Xaadim Mbàkke moo leen waxtaan ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bi mi ngi fii sëriñ bi joxe ndigal ne na wax te ñam saa ngi nii sama ginnaaw nga xam ne ku ko fi fekk doo ko ne loo fi wut ajaratu jàbbaloo soxna daba lay waajee ajaratu jàbbaloo soxna daba lay wàllee ànd ak turandooy soxna Daba Mbàkke yi tambale ko ci waaw waaw ma nga ne ñang ñam ñang Ousmane di nit ku baax kon suñu la fi fekkee danañ la sant sante turandooy soxna Daba yi tambale ko ci soxna Daba Mbàkke mu sëriñ Mbàkke Madina jëf Mbàkke ñu ngi leen di ziaré bu baax légui nak serigne bi dafa wax ne kaddu gi ki ñu yo jox Alaaji Sàmba ba moy kan? suñu soppé sëtub sëriñ Afia bëgg lu baax def lu baax wax lu baax soppee jullit yépp sëtub sëriñ Bamba Xaadim Rasuul bi nga xam ne royukaay la sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu sëriñ Saliou sëriñ Aliou Mbacke mu seex Mudu moo andi seex Bamba ci biir mooy waaji Moustapha Ndong kenn du seex Mudu Moustapha Mbacke Falilou Diop kenn du seex Mudu Moustapha Mbacke Cheikh Basirou ki ko judd bi mate na ko teraanga ji mate na ko kooku mooy kan Serigne Moustapha Mbacke Abdoulou Doot Mourtala yaa koy dugal ñëwal. na la yàlla fay. yaa ak sama baay Samba wa ab cër ku ko amut doo ko joxe koo gis muy joxe cër am na lu ko yàlla dénk cib cër yàlla na ngeen fi yàgg te man tey màggal gi dama fee ñëwaloon sama waajur alaaji mbakki yu fay bu télévision Touba TV kàddoom ñëw ci sunu waajur wu baax wa alaaji Cheikh Balla Samb moom alaaji góor a Samb bu njaareem dëkk njaareem di doomi njaareem mu boole ma ak Ousin caméraman bu Touba TV ne bu ngeen demee neel sëñ bi saa yu doyalee na leen ba bu doyaloo gudd na leen téele ba koro muy doyal dañoo monté avant première bi mu toll ci dix-neuf minutes gars yi ne dafa gudd mu ne bisub sëñ am sa bu doon vingt nangam minutes ma teg ko man Cheikh Balla Samb mom la ñëwul waye ki nga ma wax nak ni bala jël kaddu na wax wax dëgg yàlla sawar naa ci ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne mel moom alaaj kii waaj wax moo yar kii waaj wax ba fii may wax ak yow ba fii may wax ak yow mooy sama waajuru góor yàlla na ko fi yàlla bàyyi muy doom ci sëriñ Abdul Wadud sëriñ Abdul Wadud sëriñ Modou Farmata ko jur taawub sëñ Afe Mbakke kii sëriñ Abdul Wadud dana tëf ne Cheikh Modou Moustapha loolu nag daa am lu ko waral moo tax mu def lool soxna su Mbakke Kajoor mooy maamam moom sëriñ Touba soxna assu moom Mbakke Kajoor moom nag daa am lu Mbakke Kajoor moom soxna su Mbakke Kajoor Cheikh Mamadou Lamine Baara maami jëmm jii toog la waxoon ne ko damaa ragal bàmmeel mu ne su fek yaangi sa wet do fatu lolou ko yobbon mbacke kadior kérok bi nu bëggee mu waccu liggéey moko bëggal bopam da génn mbacke kadior doo ko wàccub liggéey bare la jatt ko mu ñew ñu denc ko mbacke kadior ki tok di sëriñ am sax wote bis da nga nan sëriñ am sax mum soxna daba moom Cheikh Modou Moustapha waaye sëriñ am sa moom sëriñ Amar Fall Mbakke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kii bete bete la sëriñ baara mooy maamam Cheikh Modou Moustapha mooy maamam sëriñ baara ak Cheikh Modou Moustapha nag noo bokk soxna Aminata Lo jant ak weer la jërëjëf soxna Aminata Lo xëri maam aminte yàlla yàlla xuju kumba gay del xuju kumba faaloo xuju kumba anta sekk xuju kumba maam njaay xuju kumba xuju bu ma sekk muy seen maam kii bete bete la sëñ Modou Moussa Cheikh Mamadou Lamine ak Cheikh Mamadou Mourtada Khadim Rasoul ñoo bokk menn maam xam nga lu tax sëriñ Mourtala soxna tuutee ku jur fa takk ko takk ko binta sala salamati ñaan ngóone mbóoj Anta Gajaga Njaay Dikke Issa Dieye Faatouré Ñang ak Astafal ñom ñëpp mokal mokkal alxuraan sa ñaam sa boo doon bakku do neexati soxna Fat Cerno bi ray mami serigne modou mahfous mbacke gaynde borom deur koku sëriñ bamba xaadim rasuul lu ñu gàtt gàtt xam-xam xam ni bi dem ndar jotee moom cerno la yu yónni moom naan jéggulu nag kun laal nga yëngu cerno jëmmi nit di koy malaaka cerno ibra faati wuta naag musaaka ba laax ba tàngee moom dong nga dugal loxoom ràcc sef ñépp xewlu ko jërë jëfati borom bayte maqaama ñaa ngi jéggulu moom moom na boo ko laalee laal ko jërëjëf jërëjëf xaaral ma jox sama sëriñ sëñ Ibrahima Sougou boroom alxuraan mu téyel ma su ma paree sama papa téyel ma xam naa alaaji baara damay bañ a guddal ndax lii ab cër la bu rëy ci man ndax Cheikh Moustapha mi kàddu gi jëm sëriñ Abdoul Wadoud mi ko jur moom la sëriñ Fallu Mbakke ne woon Abdoul Wadoud mu ne Mbakke mu ne ko yaay samay tànk ci njaarim alaaj Samba danaa la netti yéeme sëñ Abdoul Wadoud dafa am dongo yuy def mbir ñu téye leen fii ci girib njaarim sëriñ Fallu woo ko ne ko no dem lijjanti ko bi mu ñëwee wax ak commandant ba noppi mu ne ko li ma man daal mooy sëriñ bi koo ne sama taalibee ma génne ko waaye mënumaa génne ñëpp sëñ Abdoulaye doot ne ko bismillah dox ba ci buntu giri bi ñu ne ana taalibey sëriñ Abdoulaye doot ñëpp tàllal ñépp a taal kooku Cheikh Mamadou Fadal moo ko tibbaloo moo tax président ci Sall xam na li muy def de keroog bi ñu ko defee la président de la république la ne Serigne Moustapha Abdoul Wadoud mu ne ah mu ne ko yow maa lay fal yow yow sama digganteeg yow kenn dox ci moo ko def lii mu mel kon Mbàkke jërëjëf xam naa sax danaa nuyu nag sëñ Amsa danaa nuyu sëñ Moustapha Ndong mais ndax bu ko neexoon xam naa bu ma paree mu yóbbu ma police sëñ Moustapha Ndong mais alaaj Samba daa am bis ma daal di jéngu ñëw ci sëñ Moustapha Abdou ne ko damaa bëgg a liggéey mu ne ma ah Bortala da bëgg liggéey ma ne ko waaw dama bëggoon nga abal ma xaalis ma liggéey mu ne ma ñaata nga soxla ma wax ko ko mu daal di woo Moustapha Ndog mu toog mu ne ko Mourtala mii laa bëgg nga joxal ma ko nangam bor bi nag amee lu ma ko yow la ko ameel nee na daa am projet alaaj Samba ñu daal di yëkkati lim bu dëgër daat may jox waaye Moustapha daal ba fii may wax ak fu ma ko rombi xam nga lu ma koy wax Moustapha maa ngi ci projet yi xam naa moom monsieur le préfet. bu bo ngeen japp ci rek man dal neena ko maa ci procès yi procès yi nag sottee gut waaw saa yu sottee nag Moussa ma jox la sop khalis ñoo ngi djeggulu soxna Daba moom seigne fallu eh. mo yoni délégation bi kon présenté leen yak délégation bi nga andal djugé ci ku tedd ka di soxna Daba mbacké moom sëriñ Fallou borom kastu rajab xamna naa bara gaay yi da ngeen di ñew de di jéggulu rek di seppi ñu néewu ñu yóbbaale ñi ci des ñëpp muy monsieur préfet ak délégation bi jóge ci ministre Dame Diop ñu mën ca ràññee ñaar rekk magam Badara sàll ak mama Oumou Ba au conseil di gestu ci sama wetu càmmooñ di jàllale nuyoo bi ci sëriñ Mahamadul Yaddaali di mbokk waaye bokk ak sëriñ am sa lépp moom sëriñ Amar suñu kilifa gu tedd ga waaye di jàll ci sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Aliou di wàcce ci moom nuyoo boobu waaye di nuyu sëriñ Bara Diakhaté mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Amsatu Mbàkke fii ci dëkk bi waaye di nuyu njaboot sëriñ Amsa yee may jàkkarloo itam muy mës Ndong ak maître Jongo ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu gaa yëpp alaaji Samba alaaji Baara Murtada Cheikh Ibrahima Sougou ak ñëpp ngeen baal ma ko juum ñooñu nañu yóbbaale ñi ci des di wax ne nag noo ngi ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa li nu ñaanoon rek ci fukki fan yeeg juróom bu yàggut subhaanahu wa mi nga xam ne lu mu nekkal mu nekk mu feeñal ci dundam gi xarbaax xarbaax bu feeñ ci dund nag mooy dund loo xam ne miinuñu nit di ko dund rawatina ci gox bi nga ko dundee ma waxoon ne maami ku tedd gi di maam Asta dund na cent trente di sol xaftaan di ca teg laafa di toog képp taal di jàngale alxuraan te mën na am ñu ko doon tudde jigéen kero bi ma demee naawal naa naa naawel di ko siyaare góor gi ma fu fekk mu ne Cheikh Mamadou Fadal moo ko fa tegoon moom Serigne Touba dafa wax ne fii nga taxaw la sëñ Fallu taxawoon daal ne soxna sii day li wolof di wax ne lu jiit njaagat yaay njaag liggéey soxna si muy màgg màgg moom mii moo ko liggéeyale loola waxin la ndax macha allah soxna jaar lim def ñëpp teg nañ ci seen bët kon nuyoo la bu bonoon yëkkati rek di nuyu itam njabootu bàjjan daba gi door ak si ñoom ñëpp. ngeen baal ma ñu tënk foofu nuyoo bi ñu jàllale ñu ko fi àgg yëpp xalifa général de Baye Fall xalifa Cheikh Mahamadul Moustapha ak jullit yëpp di leen ñaanal ñaan gu yaatu koo xam ne nañu ko bëggee rek dama koy waxoon sëñ Muntaxa yàlla nañ ko amee noona noonu defe naa mooy ni gën a jub di tënk rek di wax na tey dañuy ñëw ci bisub ku ñu wax Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha nag. dafa am lu ñu war a jàngate ci moom ndax Cheikh Moustapha ki mu wuutu du ku neexa wut te boo gisee fi mu jële yëf yi ak fi mu ko yóbbu buñ la nee Cheikh Moustapha dundul téeméeri at doo ko mën a gëm te ci nattale dundu seex Moustapha yépp juróom benn fukki at ya manqué na juróom fukki at ak juróom-ñaar ci nattale moom la Cheikh Moustapha def fii ci àdduna te kenn ku nekk xam na ne boo xoolee jëfam baa nga xool waxam bokk na ci li ci gën a gàtt nii mu nase yoon wi dontale ku baax ki nasoon na ko nii mu ko nase ba mu noppee nocceeku ci njàmbarteem loolu rek doy na sëgg sëkk ci liggéeyu Cheikh Moustapha al Karim waaye doy na ci itam njaboot gi nga xam ne ñoo doonoon ay rakkam te mu jàppe leen ay doomi sëriñam taxaw yu rëy yi mu leen taxaw ba ñennat ñi nga xam ne ay taawam ñoo leen mag li ñu war a taxawoo nit ci ñoom la ko njëkkee door a ñëw ci Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma kër kër jooju la fi nekkee ak yitte ju tar jooju ak coono yooyu ba tawat na fi tawat joo xam ne bi ñu ko nemmi sëriñ Serigne di ko seetloo fajkat yi bi ko docteur yi nemmi dañoo wax ne gisuñu ci moom lenn lu may ñàkk nelaw kero bi ko ko sëriñ Cheikh gaaralee daf ko ne ah nasaraan bi de moo ne xam na lëf ci lii muy liggéey ndax bi fi sama maam ju tedd ju jógee ba léegi day gëmuma bët fenn te kenn ku nekk xam na ne loolu yitte la mujj na feeñ ci jëmm ji ndax képp koo gis dangay jàpp ne téeméeri atam mat na sëkk kenn ku nekk xam na ne projet yi fi sëriñ bi bàyyi woon muy raay bii di jumaa ji ak yóbbu sayrus jëmmam ca Touba te xaddu damm kenn ku nekk xam ne Cheikh Moustapha procès def na ko defin woo xam ne ku dul moom mënuloo ko waaye ngeen xam ne ñeent fukki fan yi mu njëkk a wóotu sëriñ bi fii te li doon fekk si sëriñ bi yëgul na sëriñ bi jóge na fi ku fa wóotu woon sëriñ bi ku way Cheikh Moustapha al Karim ah ba wutul mbir mën naa xew kon kooku mooy tuuti ci lu bokk Cheikh Moustapha al Karim may wax na ak nite ak nite ci moom la dëppe woon nekk na fii ba jóge fii feeñalul dara dara daray xar baax nite rekk ci la sëñ Mor Moustapha doon dund wax nañ ne ñett yii bi mu wutoo sëriñ Touba bàyyiwu ko ba ni mu wuyjee Serigne Touba jumaa ji wala jàkka ji mu doon jiite màggalu Touba du dox diggam ak moom jàngale xam-xam bi mu doon def màggalu tubaa ak benn yitte du dox diggam ak moom. ba wax nañu ne dem na fi ñaaxeen yoon woo xam ne ci ngan ñim yóbbaale woon Cheikh Mourtada ci la bokk wax nañ ne Cheikh Moustapha Fadal mii ci la bokk waaye ñamu doon jàngal ca ñoom la ngan ngay xat-xat dafa wéet ak ñoom jox leen seen bind wax nañu itam ñam wi ñu doon dëndale ci biir këram mooy séddale bi mu wutoo sëriñ bi ba ni mu fekkee sëriñ bi moo koy def ci loxo boppam lu gàtt rek mu jàngale ci taalibe gu mat sëkk ndax kenn ku nekk xam na ne la tàmbalee ci sëriñ Abdul Ahad jëm suuf ci zaahir mën na leen a jaboote waaye wax nañu ne bis dana leen a ndab séddale ko toog ci kaw ba si yàgg mu wàcc toog ci suuf yokk ndab la defaraat ko ba mu baax mu yóbbu ko fi barab yàgg ca suuf lool bi ko mag ñi laaje ne ko lan la mu ne jamono bi may tolloo ci dënale dañ ma wax ne Mouhamadul Mourtada moom Cheikhul Khadim dafa dugg ci kër gi moom laa doon defaral xéwal googu te doomi sëriñ tubaa sama pas-pas muyuma jox ko ndab di ko tiim te xam naa ne su ma toogee ci kaw dinaa ko tiim ci koo xam ne mën nga koo jaboote ngeen bokk néegu ndey bokk benn baay loola jàngale ak taalibe mënu ko weesu kon ci mbiram bu ma ci taxawlu ndax jombul ku mel ni sëriñ Serigne Sadibou Touré mi ngi ci yoon wi maa ngi koy nuyu mi ngi nii toog xëy na simili yi muy am mën na cee wax lu gën a xóot naa Hamza xam naa ci moom loo xam ne te macha allah lu fi jooy rek dana ko jooyanti parce que dëgg moom du ci am complexe amu ci kers doon la ko yàlla binde te itam macha allah li mu yër dégg na ko rafet na kon Cheikh Moustapha buñ ci taxawlu ngir bàyyee bokk yi li ci des ñaar yi rekk la dañoo wax ne bis bii ci la wuy ji woon boroomam fegoo ji ak sëriñam ba baayam ba xaadimu rasuul ma bëgg leen a fàttali lu gàtt moom lii xew ci moom bi mu xewee ci sëriñ bi mu koy defal lii nu koy defal nii rekk la ko Cheikh sawaa doon defee ci xabrub sëriñ bi lañuy wër jàng fa alxuraan joo xam ne ju limu lay doon bu ñu nuppee xutba mu am sa Chine bi nga xam ne moom la sëriñ bi defoon mooy dénkaaneem yu mujj yu dëgër yooyu yële moom la leen di tegal ci taabal ji ñépp jàkkaarlook moom daray caaxaan newu ca dara ci ak daanu ko te nekku ca dara lu may sharia nekku ca nii la sëriñ Modou Moustapha daa def muy lii ñu tuddee magalub dara xudóos kenn ku nekk xam na ne nag sos moo am ak sof waaye kiy sof dafa war a góor góorlu ba li sëriñ Tubaa waxoon ne ñàmbaas li yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi doy na ndijooram wëlis muy defante tazilu ma sabata lil mushafai arna yamini an azan wa midfai ñambaas nag day niroog la ñuy ñambaas Cheikh Ahmad Moustapha ci nii la nekke woon kon ñu jàpp ne bis bu dellusi moo xam ku faatu la moo xam ku juddu la lañ ca war a jàngate bokk na ca la ñuy royee borom bis bi waaye lañ ca war a jàngate itam nañu xam ne ñi ko teewee ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukki fan ak juróom génn na ci suñ dund ku ne ci noonu loolu mu nekk njàngat mu rëy euh, wetu Cheikh Moustapha Al euh, foofu rek laa yem ci tënk bi waaye di fàttali rekk ne ñun dañoo topp ku ñu wax Ahmadul Xadim moom mu wutu woon ko Ahmadul Xadim nag yéen turandoo Cheikh Moustapha yii macha allah da ngeen cee tuufu bu baax ndax Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci li mu gën a sante subhaanahu wa taala mooy li ñu ko tuddee yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi lazi la yahmadu fi nafsihi si wasmihi muhammadu kon yéen ñi tuddee Cheikh Moustapha al Karim yéen ñi ñu ko tuddee seddu ngeen cër bu rëy waaye nag ñu teg suñu tànk wala boog ñu jéem koo teg fa mu ko tegoon danañu dimbale ba bu ñu àggul fii mu àgg itam daañu ko séen wet googu loolu laa ciy wax sëriñ Tuubaa mii nag sëñ bu Bousso fii la nekkoon pàkk baa ngi nii bu doon bëccëg boo geesoo di seen këram dafa wax na daa woote fii jotaay bis mu fekkee ko mu ne dama leen bëgg a wax lu gàtt baax baay taxuta mucc baax doom taxuta mucc yonente yàlla nohin nabiyun la mursal la ci ulul azmi la bok. doomam ja ñuy wax kanaan kenn gënu koo baax bàyyi te wàqante wa ba mu baree mu wax ne ma ngay dem yéeg ca doj ya suñu borom daf ko wax ne fii rek la mucc gi nekk tey nekkul feneen dafa mujj lab mu wax ne yontu nabiyul mursal la ci ulul azmi la bok. yonte yàlla Muhammad ba amoon sëriñ mooy sëriñam baayam ba kenn gënu ko doom te ko am basira boo xoolee seen jéngam ba ca sawara mu daldi wax ne ñii ma leen tuddal man sëriñ tubaa sëñ bàllaay wax na sëñ tubaa wax ñoo ma gën fopp fopp fopp lu ñu amul mënuma ko am jóg leen jaamu ji yàlla te ba seen pom yi nee na jotaay boobu loolu la ci sëriñ bi wax bu ngeen delloo ci xasaayit yii xaside yi ngeen xam ne wax na ne karaamati xattu yëdd yi dégg ngeen ci biir sëriñ bi da wax ne wa kunna siiri anisi xiinama dafanoo jismi fa sirtu waxidan sama yàllaahu bu ëllëgee yow subhaanahu wa taala ma dimbale wettili ma jamono bu ñu jëlee sama saayirus yaram delloo ko fi mu jóge woon ma nekk fa ku wéet laa tat mu man na maa ngi maaxat yoraw yoxo nii bal ik fiyan kol macha yàlla bul booleeg sayrus yaram woowee dara lu muy ragal na nga ko fa fegal lépp donte la nag donte la nag wahaba lii xayru wala shafaa nee na yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi may na ko ràmmu kon ma daana ci xissa boobu ak indi yóbbante ministre Dame Diop ca gànnaar kenn ca mag ña dafa ñëw jébbuli ci moom bàyyi ko ci benn dëkk fekk ko fi mu nekk def ak moom ñaari weer di yootu ñett ne ko mbàkke damay bëgg a dellu te mag amub cër ma bëggoon su ma faatoo yaa may dugal ci sama bàmmeel te dégg naa ne nasaraan bi yolomal na la nga war a dellu senegaal te loolu jàpp naa dootu am ma bëgg nag bu fekkee ne am na lool su bàyyi koo ci man buñ ma ko robaalee bu ma duggee ci sama bàmmeel suñu ma laajee ndeem daa ñu ma laaj ma xam lu may tontu ci la sëñ Tuubaa waxe woon la nga xam ne ñun ñëpp ci la ñu kalambitu ba luñ waaye ñambaas walla ñuy teggi sànni fële te sëriñ bi nee na ñambaas dafa bokk ci mission mu daal di koy wax ne yow nangul naa la lii foo mën a nekk ci àdduna buñ lay rob maa lay nangu ca la waxe woon waxam juréyam jëne ñi ma yaakaar ñëpp kenn ku ne ci ñoom bu ko defoon ci teeroom sama borom may na ma gaaw ak yaatuwaay boo xam ne bu ñu ne jéy yi may nangu yàlla nañu ci yàlla boole waaye ba njaboot ba wonee ginnaaw dafa geesu fere ya loolooy ñàmbaas wi daldi wax ne lii ma wax jëmm ji baa du ngeen ko dégg ba mu dox seen diggante ak jaamu yàlla maa ngi leen di wax ne bu ëllëgee ku ñu ci ne jéy ci sa biir bàmmeel te fekkoo ma fa la tee ma teew yaa ko def kooku nag mooy Serigne Touba kon ñu gën a góorluwaat gën a laxasaayuwaat fexe ba la ñuy dénk américain ya ak di ko dénk yeneen xeetu nit ya allemand ya muy dëggu ak wóor ak nangoo sonn te jullit yi moom ko ñu fexe ba foqar ko ci ñoom téye ko buñ ne aka ñoo dëgg ñu ne ah kooku te jullit piir la bu bu ñu ne aka nangoo sonn ñu ne jullit piir a ngoog lii mooy suñu warugar yi ci des waxaguma dara sax waaye damay wax ni li ëpp solo bu sëriñ am su ñëwee ragal naa ne macha allah ndox du bàyyi yoonam te bu waxee daañu yëg ne wax na ginnaaw xaw na guddi ñu bàyyi xel loolu di wax ne ministre Dame di njaboot ci kër gi ndax buñ ne njaboot ci kër gi maamam mooy sëriñ Cheikh Coro waaye sëriñ seex Bombali moom sëriñ Mbàkke Madina mooy sëriñam daf ma woo démb wax ma ne dinaa yebal délégation bu fekkee ne jàppandi na fi yow dama bëgg nga gungeel ma leen kon ñoom ña nga nële lenn ci ñoom ñi jiite délégation bi ñenn ñaa ngi ci biir mbooloo mi sëriñam sa yàgg sa jëwriñ sëñ Baara seen mbokk nee mi ngi wàcce ak wàllam ci seeni wet mi ngi leen di nuyu ni mu wàccee wàllam ni la leen yëkkatee mu ngi leen di jox li leen yàlla jox mi ngi wëlbatikuwaat di leen wax na seen njaboot la seen taalibe la ngeen ñaanal ko ba li ko président de la république yan ci coobare borom bi ngeen ñaanal ko mu def ci lu kawe njortam kàddu yi la waxoon ne naa ko yëkkati di wax ne délégation yi nag ku ma ci fàtte mooy njabootu Moustapha Guèye ñoom daje woon na ak ñoom bi ñuy door a ñëw nuyu naa leen musala maire délégation bi aussi nuyu naa leen ku ma ci fàtte na ma baal aw ma fàtte kenn nit nag moo dul mat rawatina Moustapha mu ñëw ci walla boog Moustapha mu ñëw ci bisub Cheikh Moustapha al donc nitam day xawa jafe lol kon ma ngi wàcce fofu kàddu gi di sante di gërëm di jéggulu lima ma jot a guddal ko su ndax yëg naane ne préfet yi ëlëk dañu wara a teel a liggéey incha kon ñoo ngi wàcce fofu kàddu di balu ñëpp ak di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh سيد الحرب وفجم صلى الله عليه وعلى آله أفضل الأمة خاتم نبيين وإمام المرسلين رديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيغني عمزة ابن سحنة دابا مبكي منت محمد محمد محمد مصطفى مبكي Yann yalla Yokuleram Leram. yow ak sa Sering bi serigne abdul Damfal porte parole Khalifa Bayfali. Euh, représentant ministre Damjob, représentant président du conseil départemental représentant maire ak membre CDD yëpp yu ma àndal bépp soppe ak turandoo soxna Daba ñëpp ñu nga xam ni ñoo di nit ñu baax ñi fi nekk sëriñ yu baax yi doomu soxna yi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen tatagal di leen ñaanal yàlla fii ngeen ñëw mu nekk kër gu mag souvenir bim ci am mooy damay bëgg dem Touba jaar fi ñu ni ma tey ngaa jaar kër gu mag ba pare ma jaar fi di ziar bëgg dem dem ba ci néeg bi nga xam ni foofu la Cheikh Ahmad Bamba tase woon yonent sallallahu alayhi wa sallam quinze jours ñu ni ma bunt bi dañ ko tëj may dem mbay dem gardien bi ne ma ah man de mën naa la ko ubbil mu fomba ko ubbil ma toog ak sama soxna ak sama doom li ma yëg bis boobu xaal bi ma tollu ba léegi du ma tegee fii sama tànk dama koy yëg macha allah ñoo ngi donc ci waxtu ak ci béréb bu nga xam ni béréb bu sell la te du jottali kàddu président de la république kàddu gouvernement kàddu gouverneur kàddu préfet Ibrahima Fall mi biggoon teew fii batale ma may jéem sol yéreem rekk di jéem a jàppale li nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñoo ngi nekk sama gannaaw te ñoom IEF ak ñoom ba ak ñeneen ñi nga xam ni ay chef départementaux yi la ñu ànd ak man pour yegg si fii wala suñu cofeel wala cofeelu gouvernement bi wala dëgg-dëgg ni bis bi bis bu am barke la ndax ñoo ngi nekk ci troisième jour baraxlu ñoo ngi nekk ci Shahban et ñëpp xam ne ni Shahban yoon salaa salaam da doon wax ni moom mooy weeram yonent bi salaa bi doon wax ni moom mooy weeram ñu nekk ci bërëb bu nga xam ni ci soppeem du dul soppeem bu gën a mag ci soppeem yu ko gën a mag moom mooy nekk sa maam ñu teew fii nga xam ni fii la defee quinze ans bërëb mënu koo gën a rëy ndaxte li mu dund ci dundam lii bii la fi gën a def waxtu yu gën a rëy ci dundam fii timit la ko allahu subhanahu wa taala woote ci moom ba nga xam ni leeram day jolli mu topp yoon bi ba yegg biir Touba te sa waajur bu góor nekk ki nga xam ni mooy premier xalifaam def li nga xam ni yoon bi lu tax ñu naan dafa leer yoon bi lu tax ñu naan dafa dëgër parce que moom moo defoon mu baaya boobu ak ki nga xam ni nekkul woon baayam rek ma dafa nekkoon timit sëriñam sëriñ boobu nag mooy Mouhamadul Moustapha Mbakke yal na yàlla yokk leeram leeram di jolli comme ni may gisee sàkkina bi wàcc ci kaw ñépp sëriñ bi daf ma déy léegi naan ma xëy na kat ñoo ngi lay yéexal ñoo ngi jégalu ma ni déedéet ba mu fi tegee tànk ba léegi li may yëg sama yaram dal ndar bi ma am sakkina bi ma am yëguma ko woon ba may jóge sama kër di si mën naa fi toog ba bët set te duma yëg lenn parce que lépp xew la fi di ñaan yàlla nag di leen ñaan ngeen ñaanal gouvernement beek Sénégal ndax yàlla def fi jàmm def fi sakina ni ko cheikh bi defe woon nga xam ni Sénégal fii ba mu fiy jaar ba naan ko njaareem man de ba mu fi jaaree sama yéem mooy lu baax rek laa fi gis ñi ñu baax rek laa fi gis te yow symboliser nga ko ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan di leen jottali waxu ak nuyoo président de la république waxu ak nuyoo gouvernement bi ak waxu ministre beeg gouverneur ak préfet Ibrahima Fall di leen tatagal di leen wax ni yan na leen yàlla bàyyi ci kanamu jullit lu yàgg ndaxte yéen kat seen dund am na njëriñ bàyyi fi sunu xalifa bi yàlla may ko gudd fan wér ak mucc ak muccule ñun ñëpp ñu fekke asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh indal mamaati indal mamaati wa qaada yowma alqiyam bi jaayi xayri man sama al amraad wa waxba almarquba wal araad محمد تبيبنا الأمام المبي الأمراد والإرقام والذل الإسم السلمان وعلي ما شعب الكرمان معنى المقول بالدعاء معنى المقول بالدعاء هو في المريض بزيد معي ولناس معيدا شهد له شراء وفيدا يا من يروح يا من يرو ودفع كل داي فلا جواري من يبو سواي ودوم علي في المساي والزبال وعلي سلطة الجرم فلا أي بكى بيسي ربنا أي بكى بيسي ربنا أنا سوبي ما مرون توابي الله فرما ما يبيسي ربنا أي بكى بيسي ربنا بيسي ربنا وجه المساء سلا علي ربنا كما سأل وابلنا نور على نور وليهب شهادة الدارين وابلنا نور على نورين ويمبكي دفل شهادة الدارين شيخ مصطفى يا نخ عند الدنقل شيخ مود مصطفى شيخ مود مصطفى شيخ مود مصطفى يا نخ عند الدنقل بالي يسبري شيخ مود مصطفى la neex a àndal tal nga xel war na dul fii ko déglu sa baay Cheikh Modou Moustapha moo andi raay bi moo fi def jumaa ji moo def si Ahmadou Bamba moo def si Ahmadou Bamba sa biir Cheikh Moustapha yaa wàññi subhaana rabbi sëñ am sa bakk bale sa bale bu baax dakk lii Mouhamadou wa salaam وفرح بآسي لبيات آمين محمد محمد له محمد محمد له مع عيوبه وما إفاسي مع عيوبه وما إفاسي من قد لي سكور في أنفاسي أمت ربا قد ما أدناسي مؤيسا مني من القناسي مد لخات مد لخياز مد يبا مد يبا مد يبا جملة لك ياس مد إلي من لو جناسي بشارة تبقى بلا أدى أي بكي دين يتوهيد إلي نسي بسنة الله منال الناس محمد رئيس كل رسي جبه يا رسول الله سيدنا محمد سيدنا محمد إما رسول الله إما رسول الله إما رسول الله أم رسولي وشو انتاز ما انتاز زيتان والماز نبي علي هل نوم هل معاس أي مكة مدل يطرع مدل يطرع بلا إنجاز من خطني أنا بلا إنجاز دازك ولا دون باس تولى الإبلة باس بلا إبلغ بلا وسواس وأسر جلو حب الواس أدعني الله بلا إفاسي وخدني اليوم في أنفس ربك رب الإشتي أما أسمع السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحمن يا فتاه يا عليم يا مالك الوهاب يا حكيم ألم فهدي من لدنك علما ونورا قلبي وزدني فحما لقن لساني واحللا من عقاد وتلغ ذاكرا وشاكرا عبد متعني الدهر بسمعي والبصر وقرني بجاه أفضل البصر الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي بلغ ما أنزل إليه ووضع لأمته أحكام الدين وكل ما يحتاجون إليه وعلى آله وصحبه وقديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء إخوة الإيمان غادرين الكرام والغادرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Al Khadim di ñaanal Serigne Touba Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké Basir yàlla na fi yàgg te wér waaye di ñaanal Serigne Mouhamadoul Mokhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadoul Moustapha yàlla yàggal ko te ko di nuyu bu baax sëriñ Amsatu Mbàkke di ko siyaar di ko màggal di ko bigi di ko ñaanal yàlla yàggal ko ti wéral ko ak bëggam yàlla defal ko ci barke Xaadimu Rasuul mu jottalil ma nuyoo bi jëwriñam ji Cheikh Modou Lamine Bara Jaxate waaye ma nuyu sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke Abdoul Wadoud maa ngi lay siyaar bu baax di la màggal te di la ñaanal yàlla defal la jàmm am naa mbégte lool nag tey xam naa mooy sëriñ bi ma war a yóbbaale Ndakaar bi ñu yéegee ci kaw ba wàcc rek laa nuyoog soxna Daba mu sëñ Mbacke Madina mu ne ma Sadio bi yow sa waxtaan daf maa neex lool loolu nag Mbacké Balla def naa ko muy sa mbégte mu def naa ko muy sëriñ boobu danaa ko yóbbaale ndakaaru maa ngi ñaan yàlla yàggal la te wéral la xam nga bala ngaa matal kóllëre gi jaar sa digganteeg sa moroom dangay fexe ba matal kóllëre gi jaar sa digganteeg sa boroom bala ngaa matal kóllëre gi jaar sa digganteeg sa moroom matalal kóllëre gi jaar sa digganteeg sa boroom boroom bi nu bind di yàlla kenn ku ne am nga ak moom kóllëre wax na ni nga koy matale allazina yuufuuna bi ahdillaahi wala yanquduna almisaax wallazina yasiluuna ma amara lahu bi an yuusara ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرون بالاسرة السيئه اولئك هم عقبى الدار ñi matal ko lëre gi jaar seen digganteeg yàlla moo ñi jokk ci la mu leen digal te di ca jokkule moo ñi ragal seen boroom moo ñu ragal ëllëg yowmal xiyaam ñu bokk ca ña torox xanaa xamal ne yowmal xiyaam kuñ ci summi def la yaramu neen takk say loxo dóor lay boldee jëme sawara torox nga ñi ma tel ko li léegi jaar seen digganteeg seen boroom dañuy muñ te yàlla tax ay muñkat la ñuy doon waaye dañuy taxawal julli waaye la leen yàlla jox ci wërsëg dañ ciy joxe te yàlla tax ñi matal kóllëre gi saa bu ñu juumee ba def lu ñaaw danañ gaaw def yu baax yu bari ndax yu baax yi mooy far yu ñaaw yi mbokk yàlla benn bàkkaar rek la dul jéggalee mooy bokkaale te bari waa na koy waxtaan ci diine da ngay jiiñ murit yi jàpp ne danoo bokkaale te Serigne Touba moo gën a kennal yàlla ci àdduna moom yàlla la nu njëkk a jàngal moom Serigne Touba lahu samawatu wal arduna jumlatuha ma saa kaana wa ma lam lam yakun abada Serigne Touba ne yàlla moom masamaan yeeg suuf yi ak li ci diggante bi lu neex yàlla mooy nekk lu neexul yàlla kenn mënta fexe mu nekk sëriñ Tuubaa nee na yàlla allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yasal sama daa sëriñ Tuubaa nee na yàlla huwal ilahu waahidul qahaaru wa malikul muluki wal jabbaaru sëriñ Tuubaa nee yàlla mooy kenn ki amul ñaareel te du dañ mukk moom yàlla di maggi mbir wa waahidun ma illahu min saani walam yasal jalazimu saani ñu ne sëriñ Tuubaa koy ku yàlla mu ne moo fi njëkk te amul mu tàmbalee moo fi mujj te amul mu jeexee wa huwa xadimun maa lahu bidaaya wa zu baqaain maa lahu nihaaya daal di jàngale nunu kenn la yàlla allahu jalla xadun wa huwa samat ليس له من والد وما ولد ولم يكن جل له كفنا وسرمد بالملك ولم دين فرد من سرين توبا من خوما كان واي من سرين توبا اشهد انه الاله الواحد وان احمد رسول العبد من سرين توبا ما سيرنا يا الله لا ما سيرنا سيدنا محمد لي يلا يوني مكي يلا دفنيو بين نجيب نجامكو وما خلقت الجنه ولي سيرال يا بدوني بنو لي تدين لودول نغين ما جامو جامو لين يا يا ناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم ارض فراسا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجوا لا اندادا وانتم تعلمون يا نينا يين نيت ني جامو سين بروم seen borom moo leen bind moo bind ñi leen fi jiitu woon ñun ñu toog ci biir baas bi amu fi kenn koo xam ne sa maam ka jur maamam mas nga koo gis amu fi kon yàlla moo ñu bind moo bind ñu fi jiitu woon nan ko jaamu ndax ñu dem àjjana yàlla mi ñu war a jaamu mooy kan suuf si moo nu ko lalal basanam la asamaan moo nu ko mbaaral mooy wàccam ndox mu jóge asamaan dal ci kaw suuf saxal gàncax def ci meññiteef ñoral ko ñu di ko jariñoo bu ñu wutal yàlla moroom fekk nuy xam te ndox mi rek war na laa mën a ndox mi jóge asamaan mo dal kani mu tang mo dal limoom mu weex mo dal barana mu saf sukar mel ndox mi la nanu jaamu yalla Serigne Touba neena na bëgg dem jëne te nangu wo jaamu yalla Serigne Touba ne ku ci nek yaa ngi nax raja'u jannatin bila ta bi sunnatil maayi yati Serigne Touba ne dof na dese naa ñu ne ko kan mu ne ki bëgg dem àjjana te nanga wut a jaamu yàlla Safia man la tubul te natti bi la taa fay noo loon yox balaa Serigne Touba ne ku jaamul yàlla perte nga saa man abba diina lesi diina ulooda wa xaaba lesi rabbul wara lesi yox badu ne ko nan la ñuy jaamoo yàlla Serigne tubaa ni yaay waa ubudu rabbakum bi maa bii xayral war yéen nit ñi jaamu leen seen borom ñu ne sëñ Tuubaa nuñ ko defee mu ne xanaa ni ko Seydina Mohamed indee waajaa moy sayidina mohammed Mohamed Seydina Mohamed nag damaa bëggoon ñu xam nu sëñ Tuubaa demee moom damay faral di déglu ay waxtaan. té ñu bari wax jë mënuñu ko leeral sëñ tuba foko tuddé ñu né moy khadim rasuul waaye da na wara lijeenti lan moko def khadim rasuul ndax sëñ tuba dafa nékkon benn way jang ba am xam-xam di tejo ko tijé ko sélal di bind ci yonent bi ba doon khadim ndax non la démé comme ni ñu démé sëñ tuba né déedéet yalla déente naa na man juróom-ñaar fukk juñaar te bindul dara أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالأق نحن سنتوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إمام المرسلين موي ليغي با ليغي با مات مو خامني ماتالي وول فيب فوم ورا ماتالي مو نيو تي يالا ساكوما فا غير ما تيل كو الاسلام ياغلل كو فوم كو بوغي moo tax Serigne Fallou Mbacké nee na l'islam dañ ko jox rasulullah yi mu di ko doxal di ko doxal ba teg ko barab fa mu ko tegoon Serigne Touba ko fa jëlee yóbbu ko boo fa ko rasulullah yi bëggee woon mu tegal ko ko fa Serigne Touba nee na rasulullah yi moom a sàkku ci yàlla ngir ma liggéey ko liggéeyal ko raama rasulullah yi min ilaahi كوني خديمه هو الدولاي بما رسول الله سكولون دونيو أنا الذي تلب كوني الخديم له سلامة سلبرية القديم بما سكولون دونيو سرين توبا مونا ورنيت لك خبي لله وللرسول وللكتاب لخد سولي بك كما بك يالا بك كو يونتي بي بك تيري القران موما ملال ني ومل خنا pepp suuf bu ne dara gi kaamil alxuraan la taxawee sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul digganteem ak Rasulullah bu ma sàkkuloon du ma ñëw ñu ne sëriñ Tuubaa من خبي لله ولرسول وللكتاب لي خادسوني بك كيما بك يالا بك يونتي بي بك تيري بي موما مال ما نال ني لا سيرن توبا من كاي لين ما واخ لين بس دي كتاي بيك لين تي مان ني نكو لو تخ ني ورا بيك ياو من يالا غي بيك مان رسول الله غي بيك مان واجهني تفسير ربي وبصره سيدنا محمد خير البصر ني يالا دا بيك ياو رك يمتا من ديديت خريتو نما نيوم yalla sama xarit la rasulullah sama xarit la lam jax fa kaw niya xalila abdi ibnu abdalayi kaw niya abdan khabiban dini khadim ahmada kafani kullu serigne touba lima bëgg dal mo xam ko serigne touba mo joge won te yalla rek liggey rasulullah rasulullah jàppaat ci loxoom ci yalla dalani yalla wa ala khairil wara wa xadini khairil wara lisil wara لا تتقوا موي سرين توبا خادم رسول نينا وجهت كل إلى من أنزل الكتب وكوني الخلاء إبا للي كتبا جبالنا سما جرم كيبا كيون تيري دي الله سما خارج لا سما صب يالا بيني نكو سرين توبا نينيتي لما يالا دفال أبقاني الله ودوما في جوي يالا دسال نما في ورحمن أكرمني يالا ترال نما نعم رأي مولزي ما سيبتولي وحبا بحنا يالا نغا خمني لما بغتي مما يما Cheikh Modou Moustapha borom bis bi moom moo wax ne Cheikh Modou Moustapha moo ne su ma juddoo woon ca ba Moustapha rek lay doon man mënumaa doon ku dul Moustapha Cheikh Moustapha sëñ Boy Fallou Ndiaye wax ko wax juróomi jëm say xusu yu Ahmadou sant sumu si Ahmadou. rasulu si ahmadu barakale la semi yow li nga defal jaam ñi war nañ laa sant yow suñ Mourou Moustapha ndax xafatta bitan ya karim rafata zikran ya alim ilmu ko bahrun min alim juddu ko bërul yu ma mi sëriñ Mourou Moustapha dégg naa léegi sëñ Moustapha du doot wax nga dëgg sëriñ Mourou Moustapha fukki at ak juróom-ñett la yor xilaafa gi nelewu fi guddi xam nga lu tax moo ko jaayante woon ak yàlla fekk maa ngi doon xalifa Serigne Touba murit yi bu leen kenn bindal bàkkaar moo tax bu murit yee ndoo taqal moom ma fanaanee fóot addim xiyaama layli duuna kasali wa bi tilawatin fudulil ixsali Cheikh Modou Moustapha Cheikh Moustapha la ñu doon jeexaatu far nga ko jël alhamdulilah yi bon nun ñëpp boole nu jël nun ñëpp daana nu kas-kas loo ko bañ ku nu gën te nooyey duwaaye nag lii dëgg yow la nu fal ñun ñëpp wut nañu waaye at ñaaneet yu nga am ñu xëy lu boole ne cas jébbal ñuy saalal yàllaa ko def moo ko sañ moo mënte moo sañ a def te kenn du def ndare moom ngir lépp moo ko doxal Moustapha sa baay gën ñëpp yaa gën ñëpp yàlla na nga ka jëm kaw ba mel ni nga mel Moustapha ak jant war nanu ngir sa jikko tuuta ko am loo ñëpp def ko te doo war say waxit bariwul Moustapha kuy wax ci yow loo am ak kuy wax ci yow loo amul bul faale lu ci dul wàññee ko yokkoo amul donnal ku tedd ka donnal bii donn bu wér yaa yaa aye gaawal te wol koo xam ne aye na wol ko aye dee fu ko aye woy ndigal sëñam sa yàlla nga yàq yàlla nga wér sëñam sa du lépp lu ron biscuit la am na lu ron te du biscuit ab sëriñ dañ koy xool tànn ko ibnu asir moo nu jàngal sëriñ yus xa bu xam arifa masaliki يا اخي انتري مع مالك يسكر اذا رعه ويسلب ديال مولاه برمي ابن عسير يا ولد الجهل داني عندك سيرين بو خم سوق واي سيرين بو خم ني داف لاي فغال يونو الكاني سيرين بو خم ني داف لاي فاتل يالا سوكو غيسي سيرين بوبو مولا مانو يوبو تي يالا سنيام سوكو كونغا سغال غي سيرين توبا ma ne woon suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustafa tajtahidu wa ablana suriyatan tudim alamala sariyaq dim sëñ am sa yàlla fi yàq alal du tax nga jënd yow ci réew mi sëriñ am sa mbàkke yàqoo loo ñaan ci buur yàlla am nga loolu sëriñ sa mbàkke lii lu wér la as gor nga ab jullit nga nit ku yiw nga sëriñ Amsa Mbakke yow ko way nga lewet nga laa biir nga woyof nga teey nga sëriñ Amsa Mbakke yaaram nga sëriñ Amsa ab sang day maandu doy nga leen wasiila sëriñ Amsa wal karaama sëriñ Amsa yow tàngatoo soxoroo ñaawoo fi ba jafewoo ñàkkoo xorom Mbakke santal yàlla am nga luy sa leela Seydina Muhammad sëriñ ku jox sa loxo borom ne ko baal maax mu ne la baal

ginnaaw loolu préfet ñu dina delloo nuyoo nuyoo ya gën a tey ya gën a tedd ya gën a rafet di ko teg ci sa loxo nga teg ko ci sa loxo yi kilifa jot say kilifa ñi nga ne ñi ñi la yónni ñu jot seeni kilifa ñoom itam ak suñuy gërëm ak suñuy cant ci ni ngeen taxawee ci bis bi te bi ngeen ko yëg jàmp na ndax defe naa ëppul ñeenti fan bu ko matee ëpp ko te teewul ngeen def ci leen war kon loolu yitte la ñoo ngi leen di sant ci yitte jooju euh, di leen gërëm euh, yow ci sa bopp it ku la gis xam ne nit ku nu yar nga ku nu jàngal nga ku discipline nga mais ku modeste nga ku jege sa peuple nga itam xanaa leen rek ma ci jaaxal la ma waroon a wax danga koo faf wax dangaa ñëw mel sol mbubum chef religieux mel na yaa wootee jàng yi ba xam naa man dutuma xam lu may wax jaxase rek waaye ñoo ngi lay ñaan suñu borom yokk la eh, dimbali la defal la sag bëgg ni ko Cheikh Sadio bu doon waxee sag bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal fii nag daayis na fi yokkoo kon nag yàlla nga fi yokk jërëjëf sant nañ bu baax gërëm leen gannaaw loolu ñuy nuyu suñu bokk yi fi teew di tàmbale ci Cheikh Mamadou Moustapha mii nga xam ne mën naa ko bañ a tudd at mu jot nii la koy defee toog sama wet ñuy jokkoo di déggante ci bari waaye muy koo xam ne dafa bokk ci kër gi ni ma ko daan waxee di koo xam ne dafa bokk ci njabootu Cheikh Moustapha al bokk ci njabootu Soxna Daba di ko doxe di ko waxe te pas-pasam ci kër gi ak yitteem ci kër gi yàlla xam na ko waaye nu it xam nañu ko yitte ji mu am ci quartier bi itam yàlla xam na ko waaye am na lu mu ci xam yitte ji mu am ci dëkk bi itam di njaareem yàlla xam na ko yonent bi xam na ko Sëriñ Tuubaa xam na ko yàlla na ko njaareem xam Ah, nit ku baax nga ku rëyite nga ah nit nag bu ma saan am yitte ji toll ne ji nga am daana ko sonal waaye yitte ji nga am de ku ma sa sonal mu jël ko noppal kon yow yàlla na la noppal ni mu noppale woon Cheikh Moustapha ma di sant bu baax ah, Mouhamadou Idali Mbacke moom sëñ Amar Fall Mbacke ñoo fi ànd ak njabootam di sant sëñ Abdoulahad Mbacke moom sëñ Aliou Mbacke di sant itam Serigne Cheikh Abdou Mbacké le ministre Cheikh Abdou Gaynde Fatma jóge fi léegi di sant Serigne Cheikh Thioro Mbacké diko gëna gërëm di suñu khalifa mom serigne Amar Fall yendu fi di sant bu baax suñu bokk yépp Serigne Xoseynu Mbacké mom serigne Atex Mbacké mom serigne fall yendu fi ànd ak euh, suñu maam Thierno Bousso di sëtu serigne Bousso bi ak seeni bokk euh di sant itam Serigne Moustapha Mbacké mom serigne Abdou Khadim yendu fi sëñ Amar Fall Mbacké moom sëñ Abdou Khadim ñoom it ànd ak seen bokk di gërëm ñëpp xam naa dana am ñoom fàtte sax waaye daal ñoo ngi sant ku fi ñëw di gërëm ku fi ñëw euh, di sant itam maître Jong ànd ak Mahmoud Moustapha Ndong di sant Mahmoud Moustapha ñoom yàgg nañ fi di sant Cheikh Mbacké Sarr waaye boo gisee Mahmoud Moustapha ak Cheikh Mbacké Sarr daaw ma leen tudd ci yu mel nii ñoom ñoom xam nañ ko xam naa ko. ni ñu demee ci kër gi la waaye ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay rafet na di sant mbooleem mbokk mu fi ñëw di sant sëriñ Dame Fall mm, di loxo sëriñ Amdi Modou benn xalifa général de Baye Fall di ndawam du tàggoog moom mu ñëw fi mooy bàyyi itam yëpp di fi ñoo ngi sant di ko gërëm sëriñ Cheikh Ndiaga Mbaye jaamu Cheikh Bassirou Sarr fàttewuñ kenn gannaaw loolu ñuy sant itam daayira yi fi ñëw ci turu daayira soppey soxna Daba ci seen tur lay sante daayira yi fi ñëw tàmbalee ko ci daayira dakaar bi nga xam ne dañ koo def seen bis def ko seen yitte ni ñu ko daan defee lañ ko defee te duñ fi ñëw rek màggal am na yenn bis ñu fi ñëw taamu ko tànn ko di fi ñëw euh, muy waa Grand Dakar ni ma ko daan waxee waa Sicap ak waa kër Cheikh Mour Diop ñoo leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sëñ Tuubaa dong nga ñor mosu ñoo yokkat ci bis bi mosuñ cee dellu gannaaw waaye mosu ñoo yokkat itam ci benn liggéey sëñ Tuubaa mosuñ cee euh, ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm soxna Daba Mbàkke moom sëriñ Fàllu euh, ay ndawam léegi lañ fi jóge indi fi ay teraanga ca xat na ci ñoom lool soxna sax dafay nekkul waaye soxna jaara ñëwal ko fi doomam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant daayira bi jóge CSN ak daayira euh, sëñ Abdou Aziz bi ñoom it ñu bokk ci kër gi ak it kuréel yi nga xam ne ñoo tàmbali bis bi ginnaaw alxuraan ji ñoom ñoo ci tegee ñoo xëy di duus ba ngoon di rajas di yëkkati amuñu seen fay sëñ Tuubaa am na ko yàlla na leen fay di gërëm ñi nga xam ne génn nañ seeni kër ñoom itam gan ñi di gërëm wa Grand wa waa Wakam aji soxna aji si aéro bu aéroport moo fi jiitu ci suba la fi ñëw ak ñu mu àndal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf fu nu fàtte nga jéggal xanaa xel day fàtt te itam coono yu bari lool gannaaw loolu nag euh, xanaa kon jàllale ñetti baat ni ko daan defee waaye ñetti baat yi nag tey dana jafe ndax euh, préfet monsieur le préfet dafay jaar en tant que mel ne chef religieux sëñ Moustapha Mbacké jaar fii Cheikh Sadibou Touré jaar fii boo fi jaaree kon defe naa mënoo teg sa tànk fu keneen tegul tànkam da ngay làmbatu rek waaye may naa rek sama ñetti sama ñetti baat euh, Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim nekkoon un homme multidimensionnel di woon it ku bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg Sëriñ Tuubaa rek doy na baat waaye moom lu mu am gannaaw yàlla bëgg Sëriñ Tuubaa ko may te bëgg dafa foor yonent bi daf ne laa yuminu ahadukum xataa akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain nee day du ngeen doone jullit wala boog seeni njullit du mat lu dul ma gënal leen seeni doom gënal leen seeni ndey gënal leen seeni bàyyi gënal leen nit ñëpp foofee la Cheikh Moustapha tegoon moo tax mu man koo liggéey liggéey man ko batale woon ca liggéey ba yombul woon ndax ak wilaaya dong da ko dul def bu ko wilaaya dong doon def Serigne Touba du ko batale kenn waaye dafa laaj pas-pas laaj yitte ju rëy laaj xel wu rafet laaj yu fit laaj jom mu daje ci Cheikh Moustapha looloo tax mu defal ko lu mu bëggoon mu teg ca nag ginnaaw liggéey ba mu ko liggéeyee loo ba mu ko liggéey loo mu liggéey ko ba noppi dajale yoonu murit rassemblé yoonu murit ci ñetti jikko jokku bokk gi joxe ak jéggale dafa am benn aaya alxuraan bu wàcc xufira anhu wa amur bil urfi wa arid anil jaahiliin jibril ñew ne ko khusul afwa yonent bi ne ko tay do comprendre mo ni nga indi moom jibril ne ko ah comprendre mo dama indi rek dama dik rek ma ma dik dem dik, ne ko ya muhammad inna rabbaka ya'muruka bis salasa sa borom da digal neena na ñett an ta'fuwa amman zalamak an tu'tiya man haramak wa an tasila man qata'a sa borom nee ngay jegal ko ton nee na ngay jox ko ne atta ñàkkal waaye ngay jokk ko la dog ñetti jiim yooyu jokk joxe jéggale la sëñ Moussa dajale yoon wi teg ko ci yoon bi mu ko teg moom ak si fii boole yëpp te la yoon bi mu am ñeenti mag nag ñoo xam ne ku ci ne dafa seede yaari baat ci moom yu gàtt waaye yu am solo kii ma ciy njëkkaay di mooy kenn ci ñi jamonoon teg Serigne Touba. ci Zahir bokk ci génération muy sëñ mbir na sil dafa jébbalu ci sëñ topp ko ba sëñ Tuubaa jóge fii mu topp Cheikh Moustapha al Karim jox ko boppam di ko seetlu nag di ko xool ba mu yàgg mu ne ko sëñ Moodu mu ne ko am ah, mu ne ko yaa man sëriñu mag yaa man sëriñu mag mag danga koy jox lu mu amut di ko wax lu bu xamul te ca topp mooy fóori ju mag ja ne woon ca Tuubaa te ragal yàlla lool jamono yi tàmbali jumaa ji te doon ko def foofu ñu njëkkoon a natt bi fi Sëriñ Tuubaa di ne ca boor yi fa ñu jullee it Cheikh Moustapha agsi mag ñépp toog yilif yoon wi waaye nag ca kersa ga teggin ya mu ñëw leen man de dama yaakaar ne yilimaan dees koy jiital waaye dees ko jiitu doon ne ca kanam mu ne ca gannaaw waaye dangay ne ca gannaaw mu ne ca kanam ñu xam li mu leen wax xam ne fañ bëgg a def jumaa ji buñ ko fa defee dañuy julli di woon Serigne Touba ginnaaw te du jekk ñu xam ne wax na dëgg fóori ju mag ne ko yow daal sëñ Modou dama yaakaar ne ku xam li nga xam daal daal laa dañ laa war di déglu rek kenn waratu laa jiitu dañ laa war di déglu rek mag ma ca topp di rakkam di soppeem ba Cheikh Ahmadou Fadal Mbacke daf ne ko nettali ne fekkee na ko mu ne Cheikh Moustapha de sama ju baax ja ba te def lépp def na ko li ma ta def lépp def na ko léegi day sof rek waaye sos jeex na sof rek teg te ne lii ma fi bal lii mu ma fi bal ci ma yi baax ak xool bu rafet ak yéen moom yiw moo tax mu baal moo ko fi waaye bu ko neexoon eggale ko sooga dem seere ba ca topp sëriñam soppeem Seexul Xadim radiyallaahu taala anhu dafa am xew-xew bu am sëriñ Moodu doxale ca ak mag ak doxin wu rafet jikko yu noble Sëriñ Tuubaa di ko wóolu ko mu ñëw mu ne ko yow de yóbbu ko sama njaboot am na ñu la mag dees leen fi jële bala ngir am ci yow yaakaar waaye yaakaar jooju de ñu am ci yow dalal nga ci sama xel bis ni ko tey kooku nag dalal xelum Sëriñ ci yaakaaram mooy suñu yaakaar moom lañu gëm moom lañu bëgg waaye nag nañ ko topp ndax bëgg ak topp ñoo tolloon ñëw ci alxuraan mahabba ak taaxa lu ci ne ñëw na ci alxuraan juróom-ñett fukk yoon ak ñett euh, moo tax Imaam si wax ne in kaana xubbuka lillaahi saadiqan ataata innal muhibba liman yuhibbu mutii'u boo nee damaa bëgg ci topp rek bëgg a des na loo bëgg danga koy topp nee na aji bëgg day topp loo mu bëgg kon nag dañ topp Cheikh Moustapha bu nañ ko topp buñ ko defee day incha allah jàpp naa ne دون كل ضرب صح ولكن دون ضرب والله أعلم وأعلى وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله شيخ اللي ما هو خنرك جونا بي أك خل مفرد شيخ مو بوسبا ليه وياك ما فات لي لو خمن فات من كتر فرق الله نيجي خمن يو نفيد في سن الله صنوتي بوكتي مسلم مثل دام جو دكتور مصطفى جي أك رئيس الكونسي خادم جي ak monsieur le maire Malick Fall ñoom ñëpp seen ndaw ñëw nañ jàpp nañ ci war a directeur Pape Modou Fall ñoom ñëpp jàpp nañ ci leen ci war def nañ ko ci presse bi damaa bëggoon bàyyi kii gërëma leen waaye nag booy moom wax defal ko sama bopp rek ñoom ñëpp muy Touba TV tàmbale ko ci RTS sëñ Omar ñu ngi dafay yable ba noppi ñëw ñëw màggal si suñu ma leen mu yàgg la ñoo ngi sant di ko gërëm di gërëm bu baax Touba TV di gërëm làmp baal di gërëm euh, TFM ak mu baax rajo télévision yi ci dëkk bi yëpp di gërëm TFM bu baax ñoom itam waaye Aliou Dia euh, euh, ku mel ne Cheikh Bara Sabou dañ ko beral ngërëm ak nit ndax ni mu ci sonne waaye nag Aliou Diouf Cheikh Aliou Diouf dañ ko beral ngërëmam ndax dafa participer ci communication bi ba noppi def ci njaqam yabal ay xale ñu ñëw fi di liggéey. nii waa daayira bi def kon wane na moom soppab Serigne Touba waaye soppab sant ñoom ñëpp ku ñu fàtte gis Lamp Fall FM fa mu koy dugal ci di ko wane àdduna bépp di ko di ko di ko di ko publicité loolu Moubarak ak RTS Migra ak rajo yëpp sëriñ bi daal sant nañ ñëpp noonu mu waxee woon kàddoom su ñëwoon it da koy jox Cheikh Moustapha Mbacké sëñ Moustapha allahumma amin amin balay amin balay allahumma amin nu diwoo